dal leen ak jàmm ci li yéen kay xëy gën tey ci Rewmi FM Rewmi Quotidien bukki bi matoon parti socialiste ak parti démocrate sénégalais ba responsable doon fante zilo ci seen biir bukki boobu le fintool mi ngi yotte ngir matt waa alliance pour la république li ko mandargal dëgg-dëgg yéen kay bi di Rewmi Quotidien fële yëpp ñu daal génn ay responsable yu mag a mag daanaka bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo sos parti APR ñooy ci bëleenta tànk ci biir ko ci honorable député Moustapha Cissé Lo yéen kay bi leen lii lépp bu dëgg-dëgg dara waral ko lu may dinante mbagg ak gën a bëgg fees daanaka tax ba fi ñu toll ku nekk di bëgg wane boppam waaye wane boppam googale ñu bëgg wane seen bopp bu ñu mooy la dikkaloon parti socialiste ci ay jamono ak parti démocrate sénégalais dana leen dikkal mu tax Assane Samb ci Rewmi Quotidien fi ñu toll kay bu ñu xool dëgg-dëgg parti APR opposition du kenn ku du moom xiiro am ci mu tëxit yéen cabinet Youssou Ndour mu ngi ngir nekk médiateur bi ngir daje waat ñoom ñaar ñëpp ni ki gaaw bi ñu dëgmal bëriwut ñu koy gis ci réew bu Sénégal am ministre buy weddi kadduy directeur de cabinet waaye bi yoon moom am na source année bu ñu xool dëgg-dëgg lu jëm ci ganaar yi xam ñu koy jëlee bitim réew di ko indi fii ci réew Sénégal ginnaaw directeur de cabinet bu ministre bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu njënd ak di Augustin Faye yëkkati mel ministre Alioune Sarr yëkkati ay kaddu ngir weddi directeur de cabinet ne gouvernement bu Sénégal gouvernement tax it yéen ci wàllu ganaar yi kaddu yi ministre Alioune Sarr ak directeur de cabinet yëkkati na ko nekk na kaddu waroo lool nguur dafal kan ne lu jëg njàkk ci boom président Macky Sall mooy ndax lu jëm ci mbirum gouvernance jëm ci wàllu yoolum Sall moom daanaka président Macky Sall moo ci yées ndax fi ñu toll buy xool dëgg-dëgg lu jëm ci wàllu ndóol tey jii la gën a tar ci réewu Sénégal lu jëm ci mbirum parrainage bi ci boppam dara jaru ci yoon méngoot ak démocratie méngoot ak charte ba noppi président Macky Sall bëgg cee jaay doole moom Ngouda Fall Kane nekkoon njiital CENTIF source année lu jëm ci plan Sénégal émergent ni ñu jëfandikoo ci moomeelu askan wi daanaka loolu lépp Ngouda Fall Kane ne jaru ci yoon mu taxit yéen kay bi di source année président Macky Sall ak nguuram bu nekkoon am taax Ngouda Fall Kane mabbu na ko Boubacar Camara moom nekk nekk candidat ci présidentielle yu 2019 ci ni kay bi ci réewu Sénégal moo tax duutu yàggati ni mel dana yi demoon ci première ba tey ni kay la cloche ne li liir mooy du l'armée bi ci boppam la ñuy koppar yi waaye gouvernement bi ci boppam la ñu jox koppar yi kon gouvernement bu Sénégal ci boppam moo war a wax ci lu jëm ci koppar yooyu la ñel jàmbaar yi demoon ci première ger bu golfe libération yi ne kay keneen koo xam ne ki moom itam ñu ngi koy joxoon baaraama tuuma ci mbirum ñu njàcce mooy directeur général bu banque atlantique jamono ji sax daanaka fi ñu toll ni yoon teg na ko ay gëtt ba mettre ko en examen yi ne kay bi daal di ñëwaat ci lan moo tax dëgg-dëgg moom Moustapha Dafir ci boppam point des juges teg ko gëtt ci jamono jooju la Rewmi Quotidien Frank Timis taxaw na ngir xeexee état bu ndax fi ñu def na ab recours recours boo xam ne bii ci centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements fa la nar ma yóbbu état bu Sénégal ngir mu attee ko état bu ci li ko bëgg xañ ci lu jëm ci exploration yi ñeel Rufisque offshore beneen jëlgati boo xam ne bii nemee ko ko ci wàllu suuf sekkee niñ koy caxat-caxatee Le Quotidien yéen kay xëy na ci ñàkk ci wàllu suuf te suuf soosu lépp ci ñaay bira fale examen ñel mbirum CFA ak entrée en sixième tey ji ko amal ci réewu Sénégal gi yëpp vox lu toll ci ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróomi junne juróom-ñett téeméer ak fanweer ak i kaay bi la junne ak juróom-ñett téeméer fukk ak juróom-ñetti centre lañ leen ni fas tas te ñu ëpp ci candidat yooyu nar a amal examen ay jigéen la ñu wàllu coupe du monde 2018 Rewmi Sport observateur Walf Quotidien record ba ci stade yéen kay ñoom ñëpp xëy ci tey le gaynde Sénégal gannaaw match a lale ay plank ba jaar ci kaw waa Colombie ni ki alxames ji ñuy seenu yéen kay bi ne bu ñu xool dëgg-dëgg gaynde Sénégal fi ñu toll ña ngay ngir gën a mën a waajal dëgg-dëgg seen digganteek waa Colombie waaye waa Colombie ki ñoom itam taxawaay bi nga xam bi am nañ ko ci ci huitième de finale yi waaye bu ñu muyul du yomb ci ñoom Sadio Mané ak Kalidou Koulibaly ne fi ñu toll ni jël nañ seen matukaay yëpp ngir xeex ba am ndam seen digganteek waa Colombie waaye yéen kab de li jaaxal dëgg-dëgg jogante yi ba mu dooreeg léegi di coupe du monde mooy Diao Baldé Keita mu taxit yéen kab bi xëy samp ab laaj ne ana Diao Baldé Keita yéen bi ne léegi leer na nañ ne Cheikhou Kouyaté léegi jëlee nañu brassard bi ci moom léegi capitaine bu gaynde Sénégal Sadio Mané la